di nuyu rawatina mbokki taalibe yi te jiital ci nuyoo bi saaxibal fadila ak cheikh Mouhamadul Muntaxa alxalifatul am li taifatil muridiya di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tëgëral ko noonu la ñuy wàccee suñu kàddu di nuyu kilifa kër gi di cheikh Abul Baraka xam ne mooy jëwriñu kër cheikh Amadul Fadal di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi loolu tëgëral ko di wàcc nag di nuyu suñu kilifa ak ëtt bi mooy Serigne Lamine Bousso ak njaboot gi mu ko bokkal yëpp. di leen ñaanal bu baax suñ boroom wéral leen te sàmm leen di wax lu gàtt rek témoin ci diggante Serigne Baye Serigne Bousso Sofoor ak Cheikh Mamadou Fadal mu nekkoon diggante yu dëgër Cheikh Mamadou Fadal fonkoon ko loolu naw la woon ko lool ba yëkkati njabootam jox ko yëkkati ay soxna jox ko loolu koo fonkut joxoo ko cër doo ko def kon nag ñu ngi ñaan ci darajaam bisam bi ñu nekk lépp lu fi waay ñaan yàlla na ko yàlla nangu ñaan gi ko ñaanal tamit yàlla ko ci yàlla jotale ndax moom ku amoon ngërëmu Cheikh du faadal la ngërëm mënta weesu mu yëkkati ay doom doomam jox ko yëkkati soxnaam jox ko kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla bi jaay Seydina alayhi salaatu wasalaam lii nii ñu yàgg kaa def yàgg kaa teewe te njaboot gi yëpp liñ wut di ko dàkk muy ngërëmul Sëñ Tuubaa rawatina ngërëmu Cheikh Amadou Fadal ñu am ko te ànd ak ñëpp bi jaay Seydina wujjoot ñu ngi sant ñëpp di gërëm mag ndaw jigéen ñëpp di ñaanal sëñ Lamin bu baax suñ borom bàyyi ko fi te wéral ko wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yëpp njabootu lay sëñ Bousso ci digal kilifa gi Cheikh Abdoul Amine ak bokk yëpp di leen saa bis bu tedd bi di ci ndokkeel ñaan suñu borom def ñu yàgg koo teewee at yu bëree bëri bëri alay sëriñ nag nitu yàlla la woon jaamkatu yàlla la woon ab dimbalekat la woon suñu borom def ko muy ni ko oyof di mbokkum réew mi ñu jëf lu baax ci réew mi suñu borom fayal nu ko te yokk ko ay leer di barakati xuraan karim ak seen xadim ñu ci saa ñëpp rek di ci dokkal ñëpp barke Seex Xaadim ak ay sëñ bi alhamdulilah jërë ngeen jëf. rahmatullahi taala wa barakaatu ñu mbokk ñu nuyu mbokki taalibe yëpp nuyu mbokk yëpp am sant bu baax baax di jiital ci cant gi sëriñ Lamine Bousso mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bousso Safar di ñaan yàlla yàggal ko fi ak yàggal fi njaboot gépp bis bi lépp luñ ci ñaan. ak lépp liñ ci taataan ci lu baax rek yàlla yàlla na fekk borom yàlla na yàlla jotle yàlla na yàlla jotle ñaan gi borom nii alagi sëriñ ndax moom lu baax rek la fi nekkoon ba lu baax la mas di def ab taaliba la as gor la woon ku bëggoon sëriñ Fàllu koo xam ne léppam gën sëriñ Fàllu kon lu am rek yooyee na ko kon nag njaboot gi bi ñu bu ñu xëyee di ko bi ñu dajaloo di ko ñaanal nekk na loo xam ni lu rafet la ñu ñaan daal yàlla jotale ko ci ñaan gi ci barke Sëriñ Tuubaa fa mu nekk ca barsàq yàlla jotale ko ci yool bi euh, ci ba ak ña fa ak ña fa fekk ak ña fa nekk ñëpp daal yàlla jot lañ ci yool bi waaw ñu ngi sant bu baax a baax sant mbokk yi fi teew yëpp di leen gërëm di gërëm mbokk taalibe bi yëpp